asalaamaaleykum man maa ngi tudd Oumar Sall euh, université Assane Seck enseignant chercheur université Assane Seck bu Ziguinchor euh, urbaniste de formation et spécialiste en aménagement urbain. lëkkaloo bi dox diggante université Assane Seck ak université euh, Cheikhul Khadim bu Touba poñ yu bëri dañ ko tënk ci poñ yu bëri bokk na ci poñ yooyu lépp loo xam ne. na ci domaine agriculture xeetu mbay xam-xam yi ci aju euh, bëgg nañ am benn euh, collaboration ak université bu Touba collaboration boo xam ne day doon loo xam dañuy ñëw jàng si ñoom bu fekkee am na loo xam ne aussi mun nañ ko def muy suñu participation pour gën a ñoŋal li nga xam ne expérience yu ñuy def fii la aussi ñu indi si ab euh, suñu suñu suñu contribution bokk nañ ci aussi lépp lu xeetoo ci xam-xam yi jëm ci maanaam nu ñuy xayma dëkk yi ni ñuy màggee ak euh, xam-xam yi aju ci li ñuy wax planification urbaine maanaam lépp loo xam ne xeetu xarale la boo xam ne mun nañ ko teg ci loxo autorité yi nga xam ne ñoom ñooy saytu dëkk bi ni muy màggee pour mun di anticiper euh, ci problème yi loolu mën a jur bokk na ci lépp loo xam ne aussi mun na fexe ba euh, énergie solaire maanaam lépp loo xam ne xeetu xarañ la comment jumtukaay bu jógee ci jant bi ñu def ko ba mu ñoŋ ba nga xam ne dina wàcc wàcce facture énergétique bi nekk ci université bi ba ci dëkk Touba. bokk na ci aussi ci collaboration lépp loo xam ne mun nañ ko indi ci suñuy waxtaan ak suñuy xalaat loo xam ne dina mën a fexe ba. lépp loo xam ne mooy qualité ndox mi ñu naan Touba ñëpp xam nañ ne loolu problème la fii eh, université am na ci ay avancées yoo xam ne mun nañ ko bokk ak suñu mbokk yi nekk Touba ñu jëm a seet yan solution la ñuy proposer pour la ak yeneen ak yeneen yoo xam ne euh, bokk na ci convention bi yoo xam ne bés bu ko ñaari université yi bëggee mun nañ ko taxawal eh, waaw ni ñu koy jëmalee mooy ay mun na nekk ci njàngale mi ci formation bi mun na nekk ci xeetu gëstu yoo xam ne ñaari université yi ñu ngi koy def mun na nekk ci aussi ay projet de développement yoo xam ne ñaari université dañ koy dañ koy nasandoo euh, mun na nekk ci xeet yu nekk di ko rafetlu di ko rafetlu parce que université Cheikhul Khadim dafa nekk université bu spéciale ci Sénégal parce que modèle bi ñu développé modèle boo xam ne mën nañ ne modèle bu unique la boo xam ne dafay boolee njàngale ak formation pratique te ñun suñu université yi nga xam ne état moo leen moo leen créé loolu dafa sooxee trop ñu ngi ciy jéem a def nag ay góorgóorlu waaye liñ ci xaar mooy Touba mun nañoo inspiré bu ñu jàng ci modèle boobu pour bu ñu delloo ñu xool nan la ñuy suñu formation lépp lu ñëm ci entrepreneuriat ji xeet mel noonu loolu bokk na ci li nga xam ne ñun ñu ngi koy xaar vraiment ci ci ci coopération bi ak lépp lu ñu mën a indi aussi pour euh, accompagner université Touba bokk na ci li nga xam ne aussi en tant que talibé aussi ñun mun euh, dañ ko war a def sas la ci ñun pour lépp loo xam ne dëkk bu mag bi di Touba euh, barke bi fi nekk ñu ñëw ba waslu si suñu àq euh, lépp loo xam ne lu baax la aussi lu Touba sumb ñu bokk kook ñoom en tant que sénégalais mais aussi en tant que talibé loolu bokk na ci aussi. bi ñu rek avant may sori ci kàddu jot euh, jotluwaat bu baax a baax nuyoo ak ak ngërëmu suñu Ahmad yu Mbacké mu jëmale ko ci recteur professeur Mamoud si ak nuyoo aussi boo xam ni dañ koy tegloo. ki loxoom mu jottali ko ñi nga xam ni moom la ànd ak muy waa délégation université Assane Seck de Ziguinchor euh, léegi nag li xew nii day loo xam ne nii euh, euh, lu ñu lu sottil la ndaxte yàgg nañ ko xalaat recteur Badji ñoonu fi plusieurs fois fekk suñu ahma ñu accueillir leen mu wane daal un intérêt scientifique pour l'université de Touba mais aussi quelque part cofeel cofeel boo xam ne nii recteur bi am na ko pour la de Touba ak aussi l'université euh, de Touba léegi nag euh, loolu moom lañ ñëwoon di ko xaatim xaatim benn benn charte boo xam ne nii ci li ñuy tënku parce que université yi dañuy def ay coopération ay partenariat waaye am na ay documents yoo xam ne moo koy lal léegi documents yooyu la ñuy tuddee convention léegi nag moom la recteur ba ñu woon indi ko fi Touba ak délégation ñu signé loolu ba nga xam ne nii day ñëw rek yeggali loo xam ne nii tàmbali woon na léegi nag bu ñu saytuwaatee euh, domaines yi nga xam ne nii moom lañu def euh, coopération bi ñaari fànn yu am solo la fànn bu njëkk bi mooy lépp mooy jàngale gëstu ak administration beneen fànn mooy njëriñ li nga xam ni moom la université yi mën a jëriñ seen askan mooy li ñuy wax service à la communauté à la société buñ jëlee affaire wala bu njëkk bi pàcc bu njëkk bi njàng mi moom bu fekkee ni gëstu la euh, dañuy xam ni léeg ci ci ci ci université yi dina faral di ñu am ay concours encadrement étudiant bu demee ba master day def mémoire de master am bu demee ba thèse day def mémo day def thèse am léeg-léeg ay ñaari enseignants yoo xam ne fi ñu jàngale bokkut di ko encadré te loolu mën nañ ko def ak université Assane Seck bu Ziguinchor bu fekk affaire njàngale ay ay mission d' man am ñu jógee Ziguinchor ñëw jàngale si fii comme aussi ñu jógee Touba dem jàngi Ziguinchor suñu étudiant mën nañ dem foofu ñoom tamit seen étudiant mën nañ ñëw fii loolu dégg na rataxal diggante yi daal bu ñu jëlee beneen aspect boo xam ne ni affaire administration la euh, expérience tamit mën nañ ko partagé ndax ci affaire gestion euh, administrative am nañ ci expérience ñu tamit am nañ ci expérience mën nañ lënkale xool ba xam ku nekk lan ma a jàngat ci moroom bu fekkee nag li ñuy wax nag service à la communauté xam bu njëkk bi li amoon mooy jàngalekat bi daa daa lëlu bon lu lu lu bon nag mais li ñuy encouragé mooy jàngale ko di lëlu di gëstu jàngale waaye tamit mu gën a amal njëriñ askanam léegi muy wax service à la communauté à la société léegi nag ñoom am nañu ay expérience yu ñu développé ci mbirum santé ci mbirum ndox ak ci mbirum euh, aménagement yoo xam ne nii bëggoon nañ cee partage seen expérience ak waa Touba ci cadre boobu sax wax nañ ni euh, mën nañ jàpp par exemple koo xam ne day jàngale médecine fële Ziguinchor ñëw jàngal si Touba pare bu fekkee hôpital bi Touba soxla mu mën a dem jox tam demaat day loo xam ne donc ay domaines yoo xam ne yu am solo la yu am solo yoo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp ko rafetlu euh, commencé parce que Ahmad yi mi nga xam ne moo jiite complexe bi ak ñi teew ñëpp daal ñu leen di gën a gërëm daal seen taxawaay di gën rafet lu baax seen passé ak seen cofeel gi ñu am ci Touba ak université Cheikh Ahmadou Khadim ci complexe Cheikh Ahmadou Khadim la formation.